ça déglu ma opposition bee dëgg sama njaboot gi laay waxal ñu ngi may déglu man xam naa ne ñu ngi may déglu. mise gu ñu pouvoir. dama ni ñun dañu doon opposé wu. <laughs> Euh. di xeex ak di xuloo. Hmm. jamono ji léegi jeex ñun li ñuy xaar waxuma jeex na. parce hmm. que. xeexak ak xuloo moom day jeex. est-ce que loolu la meilleure réponse du nekkul ci at yi ngeen di posé non non non parce que a def nii may mun a. non waaw transition. la transition parce que nit ñi dañoo bëgg lu yomb. ku bëgg a opposé wu du ñu fii ci rang bi dañ ñëw opposé ñun on a plus à nous opposer ñun amuñu pour critiquer amuñu pour xuloo amuñu pour xeex xam nga fi ne nii lan lañ ñuy xaar ñu nekk une force de proposition. lan la ñuy xaar moo ñu nekk des sentinelles de ce combat démocratie bii ñu xeex ak liberté bi dañu war a nekk ay sentinelles taxaw di ko superviser. man may taxaw di ko surveiller. di xool Fatou Abdou ñoom est-ce que changé nañu tox ak toogaay ñoom mun a Bousso est-ce que liñ doon wax démb ñu ngi ci yoon boobu ba tey ku bëgg a wàcc ñu delloo si la mais sunu rol nekkul jamono ji ñi nga xam ne ñoo war a ñëw taxaw opposé wu ñu bëgg a continuer defanteeg ñoom. opposition daal mais mun a sànq malheureusement dañu dagg mais yaa ngi woon euh, ci foo xamante ne par rapport à l'opposition radicale. Mm-hmm. Euh, avant sax ñu doon dem peut-être jëli page de publicité qui est très importante puisque c'est un service commercial c'est normal. mais bi ñu ñëwee waaw parce que waaw koppar gi looloo koy dugal mais sànq dama le na da nga ma jox réponse boo xam ne ma jaaxal surtout venant que aujourd'hui boo nee bi ñu ngi leen di xaar ñu opposé wu. je pense que sa réponse moo doon opposition bi du ñu woo comme yéen ni ngeen opposé woo parce que yéen bi ngeen di opposé wu da ngeen a taxaw ne da am un régime bu leen di brimer da ngeen am un régime bu jiiñ seen leader de viol de menace de mort am un régime boo xamante ne gis nañu li nga xamante ne moom moo fi am j'espère que yéen bëggu leen opposition bu def loon parce que vous n'allez pas poser ces actes waaw mais attention éliminer un adversaire politique non defal naa question de l'emploi xale yi du ñu am xëy di dem Nicaragua wala ñuy jël wala ñuy jël yoonu Barça mhm. Barsax mhm. ay problème yoo xamante ne dañ ko fi teg ba taxaw di bàkku ne opposition bu ñëw na saf j'espère que vous n'allez pas faire ça opposition bi dafa war a saf man je veux que les gens s'opposent parce que dans un pays normal day am ñuy gouverner am ñuy opposé wu Fatou Abdou ñun bu ñu neexoon du ñu opposé wu ñun ñoo xeex 2011 fal président Macky Sall mu commencé doxal li muy doxal arrangé wuñu ñu dem dugg ci opposition bi créer la première plateforme de l' opposition muy FPDR j'étais signataire 2013 ba léegi ñu ngi opposé wu ñu neexoon def nii ñu bëre def tey nga dugg suba nga génn di gérer ay affaires personnelles dañu opposé wu à ce régime parce que dañu opposé wu ci vision wa hmm. du opposition bi moom mooy accusé waate de viol c' était le pouvoir du position bi moom mooy brimé di joxe xañ c'était le pouvoir. et vous n'allez pas faire ça j'espère non ñun on est du pouvoir. y a les a les du pouvoir sama dama bëgg sama njaboot gi xam ni on est au pouvoir. on a l'habitude de nous battre. on s'est battu. on a le droit en un répit. léegi kon ñoom bu ñu gisee non bu ñu gisee loo xam ne jaarul yoon kon dañ leen di bàyyi rek ñoom ngeen dem fa mu dul jaar bu ñu gisee loo xam ne dangeen ngeen koy doxal te jaarul yoon ñi ànd ak yéen dañu war a sëgg rek déedéet nee naa la on doit être des sentinelles sentinelle mooy kii war a taxaw di surveiller di encadrer mais qui surveille qui surveille critique et propose non kon da nga bëgg lu yomb ñun mënuñoo opposé wu 12 ans xaw ma 14 ans. ak opposition mu méttee ah. ñu naan dañuy critiqué mais ñoom dañoo war a. opposition dafa métti. dafa xam nga ñu xam nga sama njaboot gi dañu am benn force bu ñu am. muy les réseaux muy les réseaux sociaux. force bu ñu am lu ñu yëkkati rek muy débat am ñu bëgg a jaar ci ñoom pour am sax une place à l' opposition. Hmm. am na ñoo xam ne fi ne nii dañu leen di tapas pour exister. loolu dañu ko njaboot gi njaboot gi yaa ngi mel ne ku ñu dénk ministre de la famille. may a sa njaboot googu boo soo soo leen bëggee génne may mun a boo leen may mun a a sa njaboot googu boo leen bëggee génne ci loolu ñu nekk boo leen bëggee génne ci loolu ñu nekk au contraire. waaw yéenay tapas yéenay tooñ yéenay dem ci nit yéen da ngeen a gagné mel ni sax gagné leen. parce que au lieu mooy li ma la wax rek victoire on est tellement révolutionnaire. di def ay chasse euh, aux sorcières di di di regarder derrière vous. di yóbbu vaar di lijjanti détails yi fi xewoon di lijjanti xar yeeg bëy yi réeroon daaw ak daaw daaw ji yéen da ngeen gañe mel ni ñu gañe ça peut se comprendre parce que nee na depuis 12 ans ñi ngi tamit looloo tax ba tey ba tey xamaguñu ni que ba tey xamagoo leen ni <laughs> loolu moo lay won ni loolu changé wuñu loolu moo lay ni li ñu doon def dañ ko doon def ak ah, gëm dafa mel ni automatisme la robot waaw mais automatisme boobu nag boobu dama ni ñun on est appelé tey ci automatisme boobu ñu xamal xale yi ne leen bu ngeen xëyee seen jot seen connexion def leen ko ci promouvoir les politiques du président Bassirou Diomaye Faye. def leen ko ci xaaral rek ne guñ ci occupé bi dama ni pour l'instant. ah yow loolu nga bëgg kat ñu occupé jeunes yi. pour l'instant oh, jeunes yi li leen li leen di. occupé il faut poser des actes rek. mooy dëgg de ah. poser des actes pour occuper ces jeunes là déedéet yow lu nga xamul. da jàpp ne attention da jàpp ne. ñi nekk ci réseaux sociaux di wax ñëpp dañoo amul xëy. muy ay magum jëmm yu mel ne yow ñu ne seen service di xëy di liggéey di connecté wu. mais bëri na reboo bëri na reboo de bëri na la. <laughs> ay robot nee na. ay ah, kon kay robot kenn ko jugé. <laughs> pose ta question s'il te plaît. Nafi bàyyi nañu ma bàyyi ma wax. a njaboot. dama ni sama njaboot te pour baab leen il faut poser des actes. dama ni des politiques yi nga xam ne daañu ci gis seen bopp lu nu mën a defendre defal loo xamante ni dootul am jot ku wax ñu tontu ko. foofu foofu leen war a mën a occuper. waaw léegi dama ni <laughs> njaboot gi ñun dañoo tàmm xeex tàmm défendre tàmm riposte tàmm nekk sur la défensive ba nga xam ni jamono ji malgré que fal nañu suñu président euh, am na ñoo xam ni dañu bëgg utiliser force de défense boobu pour attaquer ñu ñu continuer di défense dama ni ce n'est pas notre rôle am na lu ma gis lu ma rafetlu muy euh, li ñuy wax ne la dañuy préparer nettoyer Sénégal yépp ndax suñu président daa gàbb bale xale yi def ko de façon spontanée ne dañu bëgg a bale réew mi yëpp. waaw xëy na ba léegi nag tàmbali duñ ko def xëy na Mouhamed peut-être foofu la bëgg a waxee aussi ce sont des propositions citoyennes qui sont à encourager. nañ tàmbali kay foofu lañ ñuy xaar. bu ñu xaar UCG feneen fu ñuy xaar xam nga mooy lan. feneen fu ñuy xaar xam nga mooy lan. Hmm. mooy des forces de proposition. Hmm. feneen fu ñuy xaar mooy lan mooy di jaar étude di jël kenn mu def ñu ascenseur. pour exister. fi ne nii ku ci pertoon sa vitesse am ci sa zéro virgule nangam pour cent. ah oui déjà mais loolu nga bëgg a wax man sama njaboot laay waxal am naa sañ-sañ wax ak yow. ku ci am zéro virgule un pour cent romb leen ko. ku ci amoon zéro virgule trois seen yoon nekkul ci moom. koo xamante ne dafa faqastalu woon naa bokk ak naa riir ak naa ca xumb naa ca saf sunu yoon. waaw wuyu na fi léegi am waxuma la candidat léegi ñun dañu am un président bi dañu war a xool bu yeewoo lu mu wax ñu wax loolu hmm. bu nekkee bañ a dugub nañ def promotion bañ a. Ah. Ah. bu nekkee ay ay cere nañ def promotion si. Ah mais mais qu'on va montrer la vraie force de proposition. dañu war a nekk une caisse de redondance. même si c'est pas bien. ma on vient de choisir le meilleur parmi. waaw mais aywa euh, s'il vous plaît may leen na fi mu posé question ci sa njaboot gi fi euh, proposition yi mais je vois que ils sont euh, vraiment wala les sénégalais commencent à être trop autoritaires par rapport à au nouveau président. conscient parce que sur les réseaux da ngay gis ñu naan kon nommer kii directeur u RTS euh, defal kii tel ministre euh, euh, yóbbul kii tel institution est-ce que réellement seen seen seen le président dina dina dina àttan toutes ces attentes là loolu laa lay wax ne la ñun suñu rôle ah njaboot gi ñëpp seen rôle nekkul toog naan kii dañ ko war a nome lii kii dañ ko war a nommer lii parce que nit ki mënoo ko jiital ba pare di ko fakkastal non nit ki jiital di ko fakkastal am na ku ma ne démb nañ ma baal daf maa fekk may dox sama soxla amul lu may wax lu dul waaw kay nag ñi ngi door a fal président boo xam dana ngénte pale <laughs> kay ngénte pale wax ko ne ko dañu bëgg di ñëw pale di ngénte <laughs> waaye kooku lu ci yoonam ci ngénte suñu président ah déedéet pour wax la rek ne la <laughs> président yi sénégalais yi sénégalais yi weesu nañu sax mun na ñu ci faloon ñëpp ay paa lañu yu màgget yoo xam ni kenn ci ñoom jurul ngéntewuñ waa léegi xam nga pour wax la ne la exigence su sénégalais yi. Ah. président bi bëgg nañ ko wax nu mu war a solo. c'est normal nu mu war a doxee. Mm-hmm. nu mu war a euh, euh, lijjanti ko. parce que dafa bokk ci ñoom. Mm-hmm. c'est parce qu'on un président aussi. parce que pour une fois ñu fal président boo xam ne. du loolu de président boo xam ni dafa bokk ci ñun. sénégalais yépp mën nañu gis seen bopp ci le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis ko ci jaar jaaram ñi dëkkoon ak moom njaga ñaaw. du am président boo xam ni dañu dafa sore xam nga tey ay ñoom président Macky Sall ñi fi jaar dañ leen jotoon a def ay super ministre ñu nekk ay président assemblée nationale mhm. jëloon taawu détaché wu du peuple mhm. mais moom dafa nekk ci biir peuple bi jóge Cap Manuel mhm. bokk ne quatre personne génn xuus ci biir nit ñi gàddu baleem dugg biir njagañaaw génn leer na ma ni xoolal tey dangay ngay toog ku laan la fii la daan baleel yaayam kii ne la marché la doon dem kii ne la dem ci tool yi dafa jege atam tamit ndaw donc loolu moo tax ñu jàpp ni seen seen seen waxuma seen maas mhm. mais daf leen jege proximité mais loolu bu mu tax ñu fàtte ni il est le gardien de notre constitution luñ ko miin miin mhm. luñ ko sopp sopp lu ñu xel toog moom moom moo yor ndogal amul kenn ku war a toog di ko exiger kii la ñu war a fal parce que nag ñun bi ñuy xeex xeexuñu pour falu man mii sama jëmm bopp ñu baree ngi wax lii leen ko war a nommer lee lañ ko war a nommer damay tenir à leur man bu doon nomination moo tax ma nekk ci opposition bi kon du ma ci opposition bi 2013 ba léegi 2011 ba léegi maa ngi opposé wu. position météo nommé nañ fi ku ñoo xamante ne fii lañ ma féete. Hmm. nommé nañ fi ñoo xamante ne ëpp naa leen ni ba fukki yoonu juróom-ñaar président Macky Sall. mais il a été porté par donc bu fekkoonte ne ah, ah, ah. nomination la. bu fekkoonte ne nomination la kon dañuy def. dem ci président Macky Sall mu nominé ñu ñu dajale suñu ay weccet tey ñu ñëwaat ci opposition parce gis nañ fi ñoo xam ni ña woon ci moom te tey ñu ngi fii ci opposition léegi ñoo bëgg a wax noonu léegi ñoo bëgg a wax noonu léegi ñoo bëgg a wax rek ne la